mbokk yi ma jotali leen communiqué bi bàyyeekoo ci ministère de la santé et de l'action sociale tey altine fanweer fan ak benn ci weeru août biñ nekk ministère de la santé de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróom fukk test yi ñu jot a def juróom fukk ak juróom ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fanweer ak ñeent cas contact mooy ñi am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñett cas yu jóge bitim réew mooy cas importé te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukk ak juróom-ñett cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu fi ñu ko jëlee ñooñu nag nii lañu ñu tëddee ci gox yi may waajal yi Kédougou am na ci juróom benn Dakar Plateau am ci ñett Mariste am ci ñaar Cité Kër gi am ci benn Géejawaay am benn Kër Massar am benn Ngor am benn Nioro am benn Patte benn ak Touba benn juróom fukk ak benn ci malade yi ñu entré hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla fanweer ak juróom benn ñu nga réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb dibéer fanweer ci weeru août biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba senegal wëññi na fukki junni ak ñett ak juróom benn téeméer ak fukk ak benn cas positif ci positif yooyu juróom-ñeent junni ak ñeent téeméer ak juróom wér nañ si ñaar ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom si hôpital yi wala ci loxo ci loxo docteur yi sur 1090 tests réalisés 55 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 5,05%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 34 cas contacts suivis par nos services, Trois cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 18 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les quartiers ou les communes que je m'en vais vous citer. La commune de Kédougou, 6 cas communautaires. Dakar Plateau, 3. Mariste, 2. Cité Kergorgi, 1. Kër Massar 1 Ngor 1 Nioro 1 Patte d'Oie 1 et Touba 1. 51 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 36 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce dimanche 30 août 2020. L'état de santé des autres patients est jugé stable. À ce jour, 13 611 cas ont été déclarés positifs, dont 9 439 guéris, 284 décédés et donc 3 887 sous traitement.